أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu ci barke yenente bi yéen ñi ànd ak seen mbokk Cheikh Ibra fii ci Kun Fayakoun TV seen bi nga xam ne yéen a ko bëggal seen bopp tey ñu ngi ñëw si wàccaayu tabaski mën naan wàccaayu tabaski nag pour ñu mën a préparer sunu bopp ba xam ne ne bu tabaski jotee rek dana mën a am xarum tabaski dana mën a am jasneer dana mën a am leneen ak leneen ak leneen lépp si ndimbalu suñu boroom lépp kon nag moo tax ñu indi leen secret yoo xam ne tey ku ko def ci wàccaay tabaski bi sunu boroom dana la si may xarum tabaski waaw surtout nag si jamono ji lii nga xam ne da ngay commencé dinaa si joxe ñaari secret yoo xam ne ne bokkul waaye képp ku ko mën a commencé danga commencé saa boo jullee ba pare nga jàng sóortu kawsara bismillahi rahmani rahim ina axtaynaaka al kawsara fasalli li rabbika wanhar inna saaniaka huwal abtar nga jàng quatorze fois muy waxaabu waxtu julli woo julli wallahi képp ku koy def bala ñëw tabaski da am xarum tabaski boo xam ne ne daf lay bett hmm, bu loolu weesoo nag boo xoolee eh, surtout kawsara googu li taxoon naar yi bëgg ko lépp tey boo bindee surtout Kawsara noonu adadu maanihu muy cent soixante et un cent soixante un ngay bind surtout Kawsara cent soixante et un nga wut xaraw nga wut karaw xar yaa xam jasneer yaa xam leneen ak leneen li nga bëgg rek nga def ko ci biir saafara bi sangoo ko ñetti fan waaye waxtu julli woo julli da nga sikkar yem sa kii eh, da nga sikkar Kawsara cent soixante quinze muy àddada maanihu boo paree nga génnee ñetti liibaru euh, xokki ñetti liibaru gerte nga génnee ko nga saraxe ko wallaay boo ko defee xarum tabaski daf lay bett ak lépp lu muy àndal kon moo tax ñu indi leen loolu si Kun Fayakoun TV yéen wax ngeen abonné si seen bu màgg bi nga xam ne ne yéen ko préféré seen bopp bëggal ko seen bopp njariñ rek moom moo ko tax jóg jërë ngeen jëf